weeru août donc euh, bu ñu jógee ci wàllum actualité indal nañ leen li nga xam ne moo di revue des titres dañuy ànd ak euh, Adjara Bonardi Cissé euh, ci rubrique boobu nga xam ne daf ñu koy proposé tous les mardis ak vendredis donc maternité baay mi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllum maternité wala lépp lu jëm ci wàllum bébé et moom la ñuy wax lu ñu war a jëfandikoo naka la ñu war a doxalinee donc moom la ñuy ànd ak Adjara Bonardi Cissé dans maternité baay mi et puis on revient juste après. Chers amis téléspectateurs de la 2STV, merci et bienvenue dans votre rubrique Maternity by Me, quatrième épisode dans votre émission préférée Matin Bonheur. donc tey nag ñu kontaan trop daal di leen di retrouver ngir ñu waxtaanee li nga xamante ni dafay soxal trop trop li nga xamante ni moom mooy femme ñu nekk ci en état de grossesse lépp lu jëm ci seen wàllum alimentation dinañ ko waxtaanee tey lan ngeen war a éviter lan ngeen war a lekk ak yenn apport lañ leen war a am par jour donc yooyu yëpp dinañ ci waxtaan ndaxte régime bi nga xamante ni moom mooy soxal ki nga xamante ni moom mooy jigéen bu wérul dafa am trop importance ci développement euh, futur fœtus bi donc de permettre rek aussi pour ñu éviter yenn complications yi nga xamante ni euh, nit ñi dinañ ko am ci seen ay grossesse waaye dinañ permettre ñu éviter yenn problème de croissance yi nga xamante ni fœtus bi daf koy am. donc bu ñuy calculer ci wàllum apport énergétique euh, femme enceinte bi lu mu soxla donc day toll ci 150 calories. minutes par jour maintenant nag boo duggee ci sa deuxième trimestre ak sa troisième trimestre apport boobu dafay yokk ba ci 350 calories ration énergétique boobu nag bu inférieure à 1500 calories à ah, problème am na ndaxte loolu moom euh, day daal day gànkal bu baax développement li nga xamante ni moom mooy euh, euh, fœtus bi te loolu euh, baaxul trop ci évolution wu grossesse yenn apport moo am solo ci boo nekkee ci sa état de grossesse bi ci njëkk moom mooy apport en protéines professionnel de santé yi nag li ci gën a bëri dañuy wax que ni que 70 grammes par jour la ki nga xamante ni moom mooy jigéen bu wérul bi soxla ci wàllum protéine maintenant nag dañuy duñu fàtte ñi nga xamante ni peut-être dañoo nekk ci ay euh, milieu défavorisé wala ñi nga xamante ni dañoo nekk ay végétarienne ñooñu peut-être que seen alimentation dafay am manque li nga xamante ni 70 grammes yooyu di nga ko gagné dans la vie de tous les jours lekk bi ngay lekk tous les jours mais en général li ngay lekk tous les jours war na mën a combler suffisamment 70 euh, grammes yooyu waaye euh, yii ma leen di citer ci ay euh, lekk. day tax rek que ni voilà day favoriser apport en protéine boobu nga xamante ni dafa baax trop ci évolution fœtus bi bi ci njëkk moom mooy ngeen combiner protéine animale viande wala muy jën wala muy nen wala muy produit yi nga xamante ni c'est des produits waaye it am ay protéines végétale yi nga xamante ni di nga ko mën a retrouver yi ma leen di lu mel ni quinoa lentilles noix wala pois chiche aussi moom mooy li ma leen di wan nii. bu ñu jógee ci apport en protéines nag dañuy dem ci apport en glucides yi métabolisme ki nga xamante ni moom moo nekk ci en état de grossesse dafay changer complètement ci période bi nga xamante ni euh, moom lay nekk en état donc moo tax nag privilégier lekk yi nga xamante ni day am ay glucose dafay baax trop. non seulement si développement euh, tissu feuilleteux yi mais aussi day baax trop ci ki nga xamante ni moom mooy jigéen bu wérul bi ngir éviter hypoglycémie yi nag li leen di conseiller mooy que ngeen privilégier sucre lent yi wax ñu leen nag sucre brut yi nga xamante ni moom la ñuy jaay ci boutique yeeg noonu non ça ça rien vous apporter ngeen répartir ko euh, en plusieurs fois dans la journée donc dinaa leen citer yenn ci ay lekk yoo xamante ni bu ngeen koy euh, favoriser dina leen may un apport en glucides bu baax seen ndekki nag na nekk ndékki bu fàtt taraj te guddi gi dafa yàgg te doo leen lekk te loolu sax day euh, daal day favoriser hypoglycémie yi donc moo tax suba si da ngeen def seen ndékki bu dëgër boo xamante ni dina leen may énergie pour la donc euh, dañuy daal day li nga xamante ni moom mooy amidon yi soit 80 grammes euh, pain moom mooy mburu soit ngeen jënd pain de mie wala ngeen jënd ay biscottes wala ngeen favoriser céréales yi c'est toujours très très bien bi ji nag na ngeen favoriser bu baax aliment yi nga xamante nii dafay am un taux de DHA mooy acide gras yi ak oméga 3 loolu nag dafay baax trop ci développement cognitif euh, bébé bi moom mooy lépp lu jëm ci cerveau bi xel beeg yooyu noonu yooyu daal dafay baax ni mel waaye it lépp lu jëm ci euh, développement aussi développement physique ci xale bi yan lekk lañ mën a trouver euh, DHA donc DHA dinañ ko gis ci li nga xamante ni moom mooy sumo ah maquereau mouru wala huile poisson donc yooyu yëpp di ngeen ko mën a gis ci supermarché yeeg marché yeeg sam ñoom yaay yi lal table yi ci mbedd yeeg yooyu noonu. donc ci lu jëm li nga xamante ni moom mooy apport en fer vitamine D yeneen vitamines yi ak sel donc yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci deuxième partie maternity by me ndax temps bi mayuñu ko ndaxte di leen bëgg jox li gën ci yéen ci seen moment yi ngeen toll donc voilà euh, pour euh, la deuxième partie qui sera vendredi dinañ ci ñëw plus amplement donc merci à tous d'avoir suivi merci Astou et euh, très bon réveil matinal à tous au revoir